asalaamaaleykum dal leen nag jàmm li gën a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëy ndool dañu koy door ak Sud Quotidien li ko soxal nag jëm ci ñàkkum ndox mi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ak taxawaayu nguur gi ci mbir mi bu ñu sukkandikoo ci ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication mi ngi xamal ne ci ay quartier yu bëri ci Ndakaaru ak ci banlieue bi ay bés yu bëree ngi nii askan yu mënuñu fexe ba teggët lu ndox lii nag njël yu bëri yàgg nañu ko dund bu ñu sukkandikoo ci suñu naataangoo yi faree ci avenue Bourguiba yooyu la njël nga xam ne li ñuy xaar ci nguur gi nag mooy mu fexe ba saafaral leen yile jafe-jafe wante nag Sud Quotidien di fàttali nii juróom-ñaari at a ngi nii daal ñi ñu jiite ab tële la ñu ci wone démb ci réunion conseil de ministres bi ñu doon amal nag njiitu réew mi mi ngi fàttali ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu ndox ak assainissement mu fexe ba dajalee lépp lu jëm ci wàllu xarañteef jëm ci wàllu xarala ak it koppar bu war ngir jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu war a jëfandikoo ngir askan wi mun a jot ci ndox ni mu waree ñu gën kaa ñoŋal fépp ci réew mi waa l'évidence it ndox moomu la ci Dakar soxal leen lool ñu ñuy xamal ne Macky Sall mi ngi soññ ministre bi ñu dénk wàllu ndox mi mu fexe ba indi ci ab saafara suñu naataangoo yi di nga xamal ne askan yu bëri fi mu toll ni daal jot ci ndox mi nga xam ne moom la ñu war a jëfandikoo te ñu soxla ko lool lu jafe la ci ñoom mu dajeeg jamono joo xam ne mbas mi mi ngi wéy di law ci suñu réew loolu le ëlëm ñëpp fi mu toll nii libération di ñu waxtaane wàllu mbas mi bilangu ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan yegg na ci juróom-ñaar fukk ñett fukki doomi aadama ak ñett ñoo ñàkk seen bakkan ci diirub ñetti fan jëmale ci mbas moomu moomule soleil di feelu waa libération di ñu xamal ne démb ni ministère bi ñu dénk wér gi yaram di wax tolluwaayu mbas mi xam le ne téeméer ak ñaar fukk ak ñaari malade yu yees ñoo amee doomu jàngoro bi ñetti ñàq ci seen bakkan fukki doomi aadama ak ñett sonn lool bu ñu yóbbu leen Sowetaas Soleil di ñu xamal ne ñi amee doomu jàngoro bi démb yeggaat nañu ci téeméer ñi ko amee wéy di law limu ñi ñàkk seen bakkan ci Covid 19 bi it di wéy di law li waral loolu yépp nag mooy ne daal askan wi si boppam ñoo sàmmanteewul ak charte yi nga xam ne moom la kilifa yi ŋànk wàllu wérgu yaram gi joxe woon suñu naataangoo yi di ñu xamal ne law bile narul dàkk fileek askan wi dellu si ñu seen xel ñu des ak soleil bi ñu waxtaanee ndaje bu am solo bi nga xam ne moo amoon ñu jaarale ko ci xarala yu yees yi te mu jëm ci xeex mbas mi l'Afrique ak Chine dañoo lëkkaloo bu baax a baax soleil bi ñu xamal ne ci boobu leen ndaje nag bu weesoo président de la république Macky Sall bokkoon na ci njiitu réewu Chine yeneen njiitu réew ñi nekk ci l'Afrique secretaire général bu bootaayu xeeti président commission union africaine ak directeur général weeru juin bi ñu ne l'info moo ñuy yeggee boobu li xibaar ci conseil des ministres bi ñu doon amal démb ministre bi ñu dénk wàllu éducation nationale di Mamadou Talla yëkkati na fa ay kàddu ne bu sañoon daal ñàng meeg ñàngale mi ñu dooraat ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ñi teewoon ci conseil des ministres bi ànd ceeg moom Mamadou Talla di soññ syndicat yi société civile yi jàngalekat yi collectivité yi ak ndongo yi ñoom ñëpp ñu fexe ba loolu mën a yemb ñu des si mbir les échos bi jox kàddu bi kii di dàmbooj dàmbooj méngaleel mbir mi daal daal ak deltu gannaaw bu nguur gi président bi ak gouvernement bi daal dañoo topp ndigalu privé bi dañoo fas yéene néewal doole bagu Sénégal tribune it di waxtaane wàllu woowule di méngale France bi nga xam ne ci ñaar fukki fan ak ñaar la ñuy dooraat njàng meeg njàngale mi ak sunu réew bi ko fas yéene amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ndax li dafa tombe rek wala ab toppandoor la ak lu mën a am daal décision yi ñu ngi toppante te nduroo nañu lool mu jëm ci wàllu déconfinement bi ak it yolomal yenn ci ay mesures loolu yëpp daal Sénégal ak France nduroo nañ ci lool bu ñu sukkandikoo ci waa tribune réew mi quotidien di ñu waxtaanee wàllu soxna sii di Aïda Mbodj moom député bi bi nga xam ne dafa yóbbu woon benn question orale ci kanamu assemblée nationale ngir ñu déglu Mansour fay ak Diouf Sarr ci koppar bi nga xam ne moom la ñu yëkkati mu jëm ci wàllu paj mi ak dund gi benn juróom-benn fukki milliards ak ñeent ba ca des moom toll ci juróom-benn fukki milliards ak juróom-ñeent ñu bëri ci suñu naataangoo yi xëyandool tey jilee dellu si si mbir moomulee soxna sii di Aïda Mbodj dafa am ku ko woo ci téléphone wante xamul kan la kooku daal ne bu deful nank du baax ci moom soxna Aïda Mbodj di xam le ne boobule xibaar yeggee na ko ki nga xam ne moom lañ jënk wàllu biir réew mi di Aly Ngouille Ndiaye ñu wax nag jëmale bi nga xam ne moom amal jamono ji fële France libération di ñu xamal ne procureur bi nee na bu sañoon daal ñeent ak juróomi at la ñuy tëj Lamine Diack ak Papa Massata libération may nga la lii ak jafe-jafe yoo xam ne daal bu ñu moyul ñi nga xam ne ñoo sant Diack ci la ñu jëm lii 2AF bi nga xam ne moom la Lamine Diack doon jiite ak agence mondiale antidopage ñoom nee nañu daal nañ teg seen gafaga luy tolloog ñeent fukk ak ñaari millions bu toftal ñeent. ci kopparu euro CIO e moom nee na nañu fexe rek ba dàmp ko ñu des ba tey ci wàllu yoon ak Cheikh Yérim Seck ginnaaw gi ñu xamlee ne dafa génne ay xibaar yoo xam ne daal teguwul ci yoon bàyyi nañu ko mu ñibbi këram wante nag day des ci ndigalu yoon mooy lii ñu duppee contrôle judiciaire Cheikh Yérim di xamle ne ci bés suñu jëm dana ci àddu laas moom li ñu waxtaanee wàllu forêt classée bu mbaaw Abdou Karim Sall ak Timbo joxoñ nañ leen baaraamu tuuma délégué de quartier yi nga xam ne ñoo faree foofulee ñoom nee nañ leen rek leen soxal mooy ñu tabaxal leen leen ab sëkk ndaw yi féete foofu jox nañu baaraamu tuuma ki nga xam ne moom lañ dénk wàllu alam bi di Abdou Karim Sall ne dafa bëgg a may fukki hectare kii di maire bu Pikine di Abdoulaye timboo ñi nga xam ne ñoo yore lépp lu jëm ci waaru jox ko bu Abdou Karim Sall di xamal waa laas ne leen mbir mi ñu koy tudd tax ko ci benn yoon stade le quotidien du sport tey jii di ñu waxtaanee wàllu kulibali bi nga xam ne dafa am ndam ci kanamu Ronaldo ginnaaw gi ñu doon amal di waxtaane it wàllu liga bi Real ay mbiram du yomb dara ci kanamu Valence ci alxamis bi ñu jeexale kook waa sunu lomb di ñu waxtaane Aziz Ndiaye bi jël décision ne day daqal carrière ci wàllu làmb bi làmb bi nga xam ne dafa sax si xolam lool te décision bi le mu jël neexu ko Aziz Ndiaye mi ngi digal Alioune Sarr mu jugee ci bopp CNG bi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm bonjour Pénurie d'eau, l'État en rade, c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication indique que l'eau est devenue presque introuvable dans plusieurs quartiers de Dakar et de sa banlieue, et ce, depuis plusieurs semaines. Cette situation est déjà vécue par plusieurs ménages, souligne le confrère de l'avenue Bourguiba, ménages sénégalais qui attendaient de leur État une solution définitive. Mais depuis sept ans, les gouvernants affichent leur impuissance. Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue hier, le président de la République a rappelé au ministre de l'eau et de l'assainissement l'impératif de mobiliser l'expertise technique et les ressources financières requises afin d'assurer le fonctionnement optimal des infrastructures hydrauliques implantées sur l'ensemble du territoire national, d'après Sud Quotidien. L'évidence titre ce matin sur Pénurie d'eau à Dakar, Macky tire les oreilles du ministre. En effet, depuis des jours, les habitants sénégalaise sont privées du liquide précieux, en plus d'être sous la hantise du coronavirus qui fait des ravages sous nos cieux. Justement, parlons de la maladie à coronavirus avec Libération. Le bilan grimpe à 73 morts. 13 décès ont été enregistrés au Sénégal en l'espace de trois jours. et la liste macabre des victimes du coronavirus s'est encore allongée. Le confrère rappelle que lors de son point journalier, le département de la santé a également révélé 122 nouveaux cas positifs au coronavirus. Le Soleil d'ajouter que les nouveaux tests ont repassé hier encore la barre des 100 cas. L'augmentation des contaminations et des décès de ces derniers jours se justifie par le non-respect des gestes ou des mesures barrières édictées par des autorités sanitaires. D'après Le Soleil, les infections risquent d'exploser dans les prochains jours si les populations ne se ressaisissent pas. Le Soleil affiche sommet extraordinaire virtuel sur la solidarité contre la COVID-19, Le confrère que le président Macky Sall plaide pour un allègement conséquent de la dette publique. Il a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État africains, le secrétaire général des Nations Unies, de la Commission de de l'OMS. Année scolaire 2019-2020, la reprise des cours est fixée la nouvelle. En effet, le ministre de l'Éducation nationale a fait une communication dans laquelle il a proposé la reprise des cours pour les classes d'examen le 25 juin 2020 et a fait un appel à une mobilisation des acteurs, des partenaires, des collectivités territoriales, de la société civile, des syndicats, des enseignants et des élèves. Et cette proposition a été adoptée par le Conseil, informe le communiqué du Conseil des ministres. Parlons toujours de l'ouverture des classes le 25 juin avec les échos qui donnent la parole à Dambo qui parle de capitulation et révèle que le président et le gouvernement ont cédé à la pression de l'oligarchie du privé. Ils ont décidé tout simplement de faire sauter de classe les élèves et d'organiser un bac au rabais. Dambo de conclure par on va sacrifier les élèves. Ouverture des classes France le 22 juin, Sénégal le 25 juin, ce qui pousse Tribune à titrer sur Maki qui macronise ses décisions. Coïncidence ou mimétisme, les décisions se suivent et se ressemblent, constate Tribune. Déconfinement, assouplissement et la même rhétorique. Là s'intéresse ce matin au morcellement de la forêt classée de Mbao. Abdou Karim Sall et Timbo au bon des accusés. Les délégués de quartier réclament un cimetière et les jeunes de Mbao accusent le ministre de l'Environnement de vouloir offrir 10 hectares au maire de Pikine. Et las de revenir sur la réponse de la cellule de com. Je cite, Abdou Karim Sall n'a rien à voir avec ça. Fin. de citation Réwmi Quotidien nous parle de l'audition de Mansour Faye et Diouf Sarr Aïda Mbodj menacée de mort cette information la quasi-totalité des quotidiens parus ce jour l'ont relayée la Lionne du Baol est menacée par un inconnu d'après tribune. Avant-hier, la députée Aïda Mbodj a déposé sur la table de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale, une question d'actualité pour faire la lumière et toute la lumière sur l'utilisation des enveloppes de 64 et 69 milliards de francs CFA destinés respectivement au secteur de la santé et à l'aide alimentaire. Après avoir reçu cet appel de la part d'un inconnu qui a proféré des menaces contre sa personne, Aïda déclare avoir informé le ministre de l'Intérieur sur Pierre quatre ans de prison et 328 millions CFA d'amende, d'après Li Quotidien. Le parquet requiert entre 4 ans et 5 ans de prison ferme. Salton pour les diacres, écrit Libération. L'IDSAF et l'Agence mondiale antidopage réclament 42,4 millions d'euros. Le CIO veut le franc symbolique. Direct News de se demander pourquoi Wad ne s'est-il pas constitué partie civile. En effet, en affirmant devant la justice que les sommes reçues de la Fédération russe lui avaient servi entre 2009 et 2012 à financer l'opposition à Abdoulaye Wad lors de trois scrutins majeurs, Lamine Diack a allumé un incendie qui n'en finit pas de se propager au Sénégal, indique Direct News. Les JAC démolis complètement avec les réquisitoires de feu contre l'ancien patron de l'IAAF et de son fils, selon les Échos. Diffusion de fausses nouvelles, Cheikh Yérim Seck, inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Stade, le quotidien du sport, titre ce matin sur Coupe d'Italie, premier trophée majeur à Naples. Koulibaly triomphe devant Ronaldo. Le défenseur sénégalais savoure le succès. Stade parle également de la Liga avec la quête de victoire dans le sprint final, le Real sous pression face à Valence ce jeudi. Terminons par sunu lomb 2005-2016, Aziz Ndiaye met fin à sa carrière. J'arrête la lutte ma passion contre mon gré. Aziz Ndiaye d'ajouter je conseille à une Sarr de quitter le CNG et il conclut par en 2013, j'avais eu 1,1 milliard en sponsoring. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.